ji boo jëlee le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre boo ko ubbee y a un écart budgétaire de plus de cinq cent milliards au premier trimestre entre janvier 2023 ak 31 mars 2024 ci rapport d'exécution budgétaire bi am na un écart budgétaire de plus de cinq cent cinquante milliards de francs CFA léegi yow boo tëbee naan naan fekkuñu fi dara ça la dinaa ci ñëw maa ngi lay toog ñëwal ma tontu la donc côté boobu noonu keesu réew mi laa la wax ku mun a rawle ku mën a rawale plus de deux mille cinq cent lingots d'or def ko ci avion rawale ko dem kooku du fi bàyyi dara ci keesu réew mi. Ah, waa mais mais loolu xam ñëpp xam nañ ko. mais da koy wax su réew mi ñu bàyyi mais da nga koy wax ma ne a rawale ku mën a rawale xaalisu réew mi ku mën a rawale leen non soit clair mais laissez-le lay wax nen nen nañu wax rek dama lay wax dafa ñu moo tax waaye ma ne la da ngeen di déglu waaw mais dañu bëgg wax ñu ko xam nga saawaay waaw ñu ngi wax rek vraiment wax ngeen déglu nga ñu nag dëgg dëgg waaw dama leen a déglu mais nag comme yor nguur gi kon boog da ngeen di bàyyi moom fii ku ci nekk wax nga waxu ku ci nekk fii danga wax bi ngay wax sama xol ngi jàmm <laughs> mais waxuma dara dama jàpp sama ñaam waaw non donc waaw non xaaral ma wax même ma yeggale rek kon boog su may wax aussi tamit ngeen di may dagg voilà donc kon boog tey ji non man yow yow Ahmed Saka bëgguma woon sa xol jàpp non saka saka man man man yow non non man waxuma waxuma saka yow man waxuma saka waxuma saka Ahmed parce que yow man dama la considéré wul comme journaliste bi nga xam ne am naa voilà bul personnaliser non personnalisé wu ma débat bi damay ah. démontrer. allez-y allez-y donc man doole ma dévier ci sama. ci sama parce que li ngeen fi wax li ngeen fi wax ci ay ñombe. dafa non tonu euh, may nañ la une heure de temps nga expliquer mais wax ñu si or boobu nga wax noonu. lor la comment ça s'est passé ba ñu jël or bi yóbbu ko à l'extérieur ñu on en a besoin or boobu da nga koy laaj Macky Sall bi fi newoon boo ko laajee peut-être dina la tontu. ah voilà mu noonu. noonu Macky Sall dañ koy ma ne li ñu fi jot a wax di jéem a tiital sénégalais yi ne Ousmane Sonko premier ministre li def nii day tiital investisseurs yi loolu c'est fo investisseurs yi liy dalal seen xel mooy transparence la bonne gouvernance loolu mooy dalal xelu investisseurs yi ak mm. donner aussi les vrais chiffres mais boo jàppee ay chiffres jàpp di ko maquiller di falsifier loolu régime bi régime bi fi nekkoon tàmm nañ ko mm. parce que ku mën a falsifier règlement intérieur bu assemblée nationale falsifier tamit ay compte public financier loolu doon loo xam ne dalay jaaxal lu ñu tàmm la kon boog man li li ma dégg démb ci point de presse Ousmane Sonko aw ma dara lu ma ci jaaxal aw ma dara lu ma ci bett ci régime bi fi jógee. donc les, les les responsabilités seront situées suñu la déggee bu baax. il faut savoir ñi ci cité ñëpp dinañ leen dinañ ah, leen. mais xam nga dafa am lu ñu wax la séparation des dafa am lu ñuy wax la séparation des pouvoirs. nekkatuñ jamonoy Macky Sall bi nga xam ni. tey jii Macky mooy yeewu xool ku ko neex daal di lay tëj ci kaso bi léegi justice ak le pouvoir judiciaire ak le pouvoir exécutif ces deux entités yi nga xam ni tey jii dañuy promouvoir li ñuy wax la séparation des pouvoirs. Hmm. kon boog du Ousmane Sonko mooy joxoñ ku ñuy tëj ak ñu dul tëj. amoon ngeen ministre bu doon laaj avis Ousmane Sonko mais ministre de la justice fait partie de l' exécutif le ministre de la justice fait partie de l' le ministre de la justice fait partie de l'exécutif parce que du non ma ne ma ne du ministre de la justice mooy tëjlu ay nit on dans un état démocratique. donc kon boog boo ko xamoon doo ma poser question. non dama la ministre de la justice il fait partie de l'exécutif. kii di tëj. maanaam procureur wala pôle financier. jëbbal installé leen y a même pas deux semaines ñoom ñoo ngi toog ñoo ngi càmbar dossier yi. donc tey jii poursuites yi ñoo ngi commencé tàmmale nanka nank parce que gis ngeen depuis deux semaines ngi nii ñoo ngi commencé convoqué ay nit ci seen gestion waaw non loolu saa yow bu bàyyi di bàyyi ruube bi bàyyi ruube bi ma ne la bàyyi ruube bi bul yàq gestion bàyyi ruube bi waaw parce que bu ruube voilà euh, sëñ non bàyyi ko allez léegi saa waay non non mënu ko bàyyi dem da nga fekk ay nit ñu toog ay kilifa toog munoo ñëw di utiliser naan dañuy ruubee <laughs> xam nga amuñu temps di ruubee ñun sénégalais la ñuy waxal. très bien Jules. dafa am ay mots yoo xam ne da nga koy utiliser yàgg ngeen di fitnaal yéen waa PASTEF yàgg ngeen fitnaal nit ñi. mënu leen xooxatal sénégalais. très bien Jules. mënu leen tëdd ci naan ngeen. amoo xam-xam yow noppil amoo xam-xam ba léegi yaa ngi wax amoo xam-xam gis nga. bu nekkee yow amoo xam-xam. yéen seen problème xam nga lan la xam ngeen lu seen problème. yéen Ousmane Sonko mooy seen problème. ma ne plateau fii laa wax Ousmane Sonko mooy problème bi yéen seen xol moo bon. non non non non non non non non non mënul taxaw Omar Faye la doon waxal Omar Faye lay waxal dafa ruubee Omar Faye nag méttiwu ko c'est que non non il a parlé a Omar Faye déedéet avant ba nag naa ko tontu loolu la commencé. waaw d'accord da ngay wax nit ñi ci teggin. sa ah, da ngay ruubee c'est clair c'est clair yow da teggin. ma ne yow da ruubee la nag Jules. xamoo dara bàyyi ko mu expliquer. bàyyi ko mu yeggee yaa ngi manipuler ay chiffres yoo xam amoo ci dara. damal jàngi sa sànq dafa tudd le rapport d'exécution budgétaire au deuxième trimestre la tudd. moom laa tudd. voilà donc ci rapport de euh, ci rapport d'exécution budgétaire bi. en tout cas bi nga xam ne moom lañ publier ci surtout ministère des finance bi nga xam ne actuellement moo ngi disponible moo ngi disponible boo ko ubbee mais dafay yomb nga comparer rapport d' exécution premier trimestre bi nga xam ni mooy du premier janvier au au 31 mars ak du 1er avril au 31 juin au moins la di nga mën a apprécier tuuti ci liggéeyu ñaari gouvernement yi rapport d' bi nga xam ni moo nekk au deuxième trimestre buñ ko comparer ak premier trimestre bi par exemple ci ci mobilisation sur la capacité de l'État à mobiliser des ressources Macky Sall au premier trimestre 803 milliards la collecte en matière de ressources mm -hmm. c'est-à-dire 17 virgule 17 virgule 15 pour cent ci li nga xam ni moom lañ ko laaj annuellement président Bassirou Diomaye Faye bi mu yéegee moo ngi mobiliser lu toll ci 1913 virgule 94 milliards donc presque le double li nga xam ni tey jii Macky moom la mënoon mobiliser au premier trimestre may dégg saa waay di naan ay non dañoo mais mais yow yow. yow yaa xamul dara parce que yow yow rapport mi ngi nii. ban rapport bi xam nga li lay wax nii. naa la ko jox rapport bi xam nga lu mu wax. rapport bi xam nga lu mu wax man du ma ñëw xam waxantu de. ban rapport ban rapport man du ma ñëw bi ngay wax noonu. deuxième télé mi ngi nii dafa leer nañ deuxième télé rap rap les les les les recettes fiscales ont de huit cent mille. mille milliards non leen kii journaliste yi. impôt nee na nee na impôt sur les salaires les recettes de vingt et un vingt et un milliards ñëw wàcce onze milliards. rapport mais corrigé leen kii. pour les annexes demal seeti annexes. mais yow demal jàngiwaat. waay ban demal jàngi. nee na bu fekkee ay journalistes ñoom ci plateau bi. dañ corrigé ay waxu ruube yi muy wax nii dara du ci dëgg. maîtriser wu ci fii di wax. allez ku nekk doo génne rek affaire bi. mais biir mais mais bu dee yow journaliste journaliste am na. zoomé ko zoomé ko génne sa. on a oui mais on a au deuxième trimestre 2024 la mobilisation des recettes budgétaires est égale à mille neuf cent treize virgule quatre vingt quatorze milliards soit quarante virgule soixante-dix pour la wax mais loolu laa lay wax recette fiscale ça yow daal vraiment recette fiscale laa la wax mi ngi nii huit cent milliards yow yow yow yow l'impôt l'impôt ah l'impôt sur sur le commerce extérieur dafa wàcc de deux cent à cent douze milliards quand même mm-hmm. arma noppi. très bien alors yow mënu ma euh, débat ak yow. impôt sur les salaires impôt sur les salaires très bien eh, Jules s'il vous plaît. oui bien sûr. il termine. Jules. ah ah waaw oh. Jules Jules. Jules Jules s'il te plaît maa ngi ñëw jox la sa temps de parole nga nga am ay euh, yooyu apporté on le laisse terminer Ndeye Fatou maa ngi ñëw. mais également nee na li gën a dangereux mooy. lu toll ci deux mille cinq cent milliards. lu toll ci deux mille cinq cent milliards Macky Sall ak cercle fermé am mën a tab soo secret défense pour uniquement corps de contrôle yi lu mel ni nag lu mel ni IGE duñ ko mën a teg bët ak Cour des comptes pour lan xaalis bi ru sàcc daw <laughs> mais duma bett parce que Macky ana ana ñu doon ana ñaata ñoo instant bi commencé génn frontières yi di daw ana Macky Sall actuellement lu muy def Maroc mais na ñibbisi hmm. Ousmane Sonko nee na képp koo xam ne da ngay modifier da ngay weddi li mu wax mais nga apporter ay preuve weddi loolu c'est très simple. c'est très ah, donc mais hmm. toog ci plateau ku ci ku ci nekk di wax. ay wax yoo xam ne amul wéeruwaay mais c'est dommage. très bien euh, donc. Moussa